aca ñu ànd ak tapisserie waa kër Serigne Djily Mbacké nee naa la ñu nga sa tali bu bees ndeysaan ku ñu décorer sa kër ndeysaan nga daal di kontaan ñooy defar meuble yi rafet yi nee naa la canapé yu mucc ayib boo bëggee sa kër rafet say gan bu ñu ñëwee daal di bég décorer la ba nga xam ni ndeysaan ku fa dugg sa xol daal di neex canapé yu nooy népp ndeysaan tubaar fakàlla masàlla salon bu rafet décoration bu rafet waa kër Serigne li Mbàkke ñoo ci ay mani gérant ba di Bamba Gueye ñu naan ko Xaadimul Moustapha 78 316 77 67 76 343 51 29 ñu nga sa tali bu bees contacté leen daal di am salon bu aca waa ba léegi rek eh, ñu ngi si li nga xam ne mooy yëngal bi maam Faly yaa ngi si nettali histoire boo xam ne mu ngi doon amee fi nga xam ne mooy terrain gaal gi. Hmm. maam Faly ak yëngal. ñi naan maam Faly day doppewu wala ñi naan maam Faly dégg gi man dama la ah. naan maam ndax da ngay fooyee wala da am mboq buy tëgg wala nu mu demee. parce que da nga am dégg-dégg si tëgg. tëgg moom mu ne ko ma ne. Hmm. moom dama ko mën sama combat xam nga ma gars def. Hmm. gars yi dañ ma entouré. maanaam wuñ ma def benn pas sama combat bi xam nga ñu wax fii doo fi fecc doo fi daw doo fi yëngal doo fi lu loolu bu ma déparé gars yi dañu may téye nee nañ comme pour maanaam ma bañ a yàq sama waaw ma bañ a yàq sama énergie quoi ma leen te ngeen maa bàyyi bu ngeen ma bàyyiwu man fii damay bëri fii juum mhm. parce que ma gars yi bàyyi may def lu ma neex boobu boobu ki ma war a bëreel dugg seegul moom mujjee dugg si làmb ji nag mhm. mais après bi ma ko gisee dama mel ni fas boo xamante ne dañ ko dóor xiir mais ay ay dix minutes lañ si teg gars yi woote woote combat bi bi mu lañ si teg gars ma ma ma wol ko xool leneen. combat dóor la woon. waaw sama yaa ngi yaa ngi def lu leer. waaw def lu leer di beneen ah. te gars yi dañuy daw ma mu daw. ñeme nga tudd tur. ñooy laaj kuñ ma jox ma la kuñ ma jox mu daw. mais say génération si combat si si bi. sama génération ma diw ma la man nee naa leen nee ko maanaam ñii di balbal ni ñoom liis ñaago nañ ma jox. Liss Ndiago dañ ma ko jox réparé laaj naa ko fi mu daw deuxième. réparé laaj naa ko fi mu daw deuxième. loxo yi daal neex de. waaw yow ay neex la ñooñ duñu ay mbër. Hmm. ñooñ non non non ñooñ li nekk si man nekku si ñoom lu nekk fii nekku si ñoom. waaw xam nga li ma la wax bu baax. loolu yaakaar naa ne promoteur bu njëkk a seetaan loolu rek. da nga siy daal di appuyé wu. Liss Ndiago buñ ma ko ak Liss Ndiago. waaye Liss Ndiago loolu loolu du combat sax maa moom. Hmm. loolu neexal la nii rek. mais maa moom du combat. bañ bañ a année la quoi. waaw bañ a wax lii. Mhm. liis na si tontu après. maam Faly Moget moo lay laaj nee na nga jël ko liis ngeen laale yéen ñaar. wala rakk bi rakk ji sax ku bëri wax ki lu mu tuddati Lora lañ ma ko jox loolu combat bu la. <laughs> waaw ñaari combat ñaari combat la. ko jox. waaw benn génération waaw nañ ma ko jox benn génération la kay. waaw benn génération bu ñëwee na ñëw na ñëw ñu neexal ko. waaw waaw. acca Faly ñu noonu di loolu. laal yoon nee na maam Faly motut luur di imposer boppam luur lu tax loolu. kar ma la benn affaire nag man ba ma jëlee poids lourd boobu xalaatu ma ne dinaa dinaa doon dara si làmb. Euh, ñaari poids lourd dafa nekkoon may seetaan na li ma wax bu baax a baax. ñaar wala benn. ñaari poids lourd benn man man xanaa ma poids yi nii nga gis nii yëpp. billaahi wallaahi wataala bu doon dañuy daje ni di bëre naa si bëri ñu may daan. Toubacouta maag moom mën nañ bëre sama doom yaay mën nañ bëre ko waa bu métti li ma la wax nii 2017 la ñu teewoo. te boobu xam nga boobu gëmaguma ne man damaa war a doon mbër. billaahi wallaahi mu génneem attaque te boobu dama gaañu fii. Tubaakuta mu génneem attaque. lamb jooju maa ngi fàttaliku je pense que lamb jooju ñoom biram kungu ñoo fa nekkoon Tubaakuta a yeneen mbir yoo xamante ne xaw ma leen quoi. 2000 lan la xawma 2017 2017. 2017 2018 guddi guddi ñu toll nii ñeme man dafa am ku ragal sama àdduna amul ku may ragal sama àdduna Toubacouta sama gaan la sama doom yaay la mais amul ku may ragal sama àdduna man amul ku ma mënta daan. mbër bu ma mënul daan moom laa tuddee Belladel si làmb ji Belladel. mbër bu ma mënul daan si làmb amul. mbër bu ma mënul daan si làmb amul. yoo xam nga lima ma la wax bu baax a baax waaw. wóor laa yoon nee na à part yan poids nga dalanteel. non du ma fi nekk naan poids lourd bi laa dalanteel wala noonu mais poids lourd yi ma daan xam nañ sama bopp. Hmm. Mhm. mais tey Mame Fally du amul bég noir ci làmb ji. bég noir koo xam ne dama daan daanaat ankañ am naa bég noir. mooy xam nga da nga la sax mais. bég noir mooy xam ne maanaam bërëm yéen ñaar day leer na kii mënu ma ko bërëm daal day day day mel ni lëndëm ci yow. amuma bég noir ci làmb kon. Hmm. parce que mën ñi may daan ñëpp. koo xamante ne may daan man boo may boo daan man maa def action nga daan ma si biir sama action. mais kenn du ma fekk tañax tañax ma daan. Hmm. léegi kan moo la daan te daan ma daan daanu ma ko. gaña faama daan na ma te daanu ma ko. daan la daanaat la. daan na ma te daanu ma ko Karim daan ma te daanu ma ko à ñooñu gisuma keneen de ku fi daan daan naa la. amul mbër bu nangoo taxaw ne ma daan naa ma daanu ma la ñi mal la limal la amul. Karim man ku ma daan tey duñ buñ daje ku ma daan tey buñ dajewaatee dama damay damaa jàpp ne damaa war a ñëw rek faxas la jàll. billaa wala wa mais. moom suñu bokk quoi combat derby la yéen ñaar. waaw combat bu neex lay doon parce que mën nañ mën nañ final bu final bu neex. final boobu noonu li gañal li ko yëkkati ba léegi xaw ma te moom jour boobu bi ma daane war na toog xalaataat ne kii nii li ma ko daanee du nen. billaa wallaa wa taala parce que jour boobu noonu man maa ko doon ñaari naax ba takku ko nii di ko tëral saa samp benn loxo ma jàll. dama gis benn combat boo xam ne yee lu moo raw classico maam ba dara internet yéen ñaar lan la. bat maam moom du dara làmb la rek. non mais fu ngeen dajee moom bul sonal sa bopp jàmm géej naa am. waaw moom moom moom moom moom moom mbër bu la quoi. Mhm. xam nga te dafa gëm lu muy def da koo mën tamit mhm. xam nga kenn du ko notable quoi mais man dama bëgg ñi nga xam ne maa moom duñu ay noon mhm. bat avant ñoo bëre dañoo xamante woon doon ay gaan buñ dajee fenn booy yeeg may ma lii waay ma yëkkati may ko. mbir yëpp noonu la mel moom man pour man mbir yi xam nga lu ñu yaakaar may millionnaire la. billaay wallaay bu ñu bu ñu waxee ñu ne ma. bu ñu waxee ñu ne ma yow. li ngay ñooti li ngay ñooti la kon li ngay ñooti da nga leen di ñooti da ngay ma am xaalis. non du ay xaalis bu ñu waxee ñu ma yow da am jàppale ñun amuñu jàppale quoi yow da am jàppale yow sa ginnaaw non dugg na fii génn na fii du loolu man dëgg la am na non non dëgg la am naa ñii mais aw ma jàppale bi gars yi foofu boo waxee ñu ne ma yow da am jàppale parce que yow dëgg la Sénégal ñëpp ma man ñëpp bëgg ku ma gis nag may bëgg quoi mais dañ koy sant yàlla daal. effectivement làmb moom ku ko bëgg a bëgg ma mais mais waaw loolu loolu loo xamante ne dama koy dama koy doxee quoi non non man boo ma fekkee fii man boo ma fekkee fii may dox da nga yaakaar moom du ngeen que. a feeñ. mais moom loolu lañ bëgg si làmb. mais moom làmb ju ma gis day mel ni loo xamante ne dafa bëgg lekk boppam. <laughs> dafa mel loo xamante ne dañ ko yoon ci man. waaw billaa wallaa benn yoon lañ ñaari yoon lañ bëre. Mhm. ma daan ko premier premier combat bi ñu bëre dama ko daan fee jamñaajo final. Mhm. ñu jóge foofu noon ñëw te bi ñuy bëree jamñaajo boobu ñaan na ma. Mhm. ñëw na ba si man na ma mbër may ma ma ne ko champion. bu du woon affaire bi ni mu demee dama lay mel parce que jour boobu noonu dama dajeeg suñu benn gaañ. gaa yi toogloo ko na ko yow boo bëree ba ba daan. na ko da ngay toog fos te kooku ngi toog ne gars yi kii man maa ko war a du ma ko ñaan nag mais bu ma nangoo may garaawul quoi ma bëreeg bat mu may ma ma daje moom mu ñaan ma ma expliqué ko mu ne ma am problème ñu ma daan ko. bi ñu fa jógee ñëw seen dëkk bëri fa combat bu ko ndombo quatre fois mënu ma ko daal. loolu lan la woon. non xaw ma dama waroon ñàkk jour boobu rek. Hmm. Mhm. après moom mu war ma ndombo trois fois mu war ma ndombo trois fois troisième fois bi la ma daan. Hmm. combat bu métti combat jinne lañ bëre jour boobu noonu. combat bu saf saf bi ma daanee. affaire bi xaw a am coow gars yi te si biir combat bi xam nga defet kenn du ko salte mhm. daan na ma daal daan na ma. waaw foofu foofu foofu foofu dañ fay dañ fay dañ fay laal am na loo fay nëbbu de. non daan coow li coow li fa amoon lu ko waral. non daan na ma non après bi ma daanee. Mhm. daf ma def yooyu mbëri def rek euh, gars xewal comme daal la ñuy rendil affaire yooyu noonu waaw. pare ma jóg nga siisu non non ma. Mhm. pare ma jóg mu ne ma da ngaa bëri wax. ma ne ko lan laa la ma sa waxal. billaay wallaahi nii la ma ko waxee da ngaa bëri wax looloo ma métti pare ma jóg réagir gars yi diggante xam waa mari ñiy taxaw di ma saaga te loolu noonu man dëgg boobu dama bëgg ñu xam ne man du ma seen ennemi parce que man lum lum lum lum lu bëri bëri boobu defaguma dara si làmb dama fa doon dem toog fa xam nga di ànd ak benn dama faa doon toog fa dama dama bëgg ñoo xam ne ñun ak ñoom duñu ay ennemi quoi nañ bàyyi ko nañ bàyyi ko maanaam dañu may def si làmb ñooñu buñu ma gisee si làmb da ngay yaakaar ne mooy loolu dama leen reel nit te làmb la quoi day jeex man aw ma ak problème kenn. mais booy bu ñu ma gisee si làmb dañu yaakaar ne mooy loolu noonu. billaa walla nañ bàyyi loolu lamb lamb la bu jeexee jeex na. loolu lay demee maam Faly la muy sànni am na solo lamb bu jeexee jeex na maam ma ki nga xam ne mooy yàmmu ay la wala gaañ la wala la. ban yàmmu. bandi 40 ans. bandi 40 ans yow loolu kenn dootu ko naataable. la bandi mooy yàmmu. waaw man maa lay waxee noon rek man ñoo yarandoo. boobu ñu toll comme booyee ñoo yorandoo suñu dëkk waaw naa ngi fàttaliku mën nañ bëre benn benn làmb bu métti suñu la woon nag comme maanaam làmb yooyu gars di def ay ay ay potimeew yooyu noonu waaw mën nañ faa bëri bu dëkk bi xaw naa jaxasoo de boobu si si fi paa di toog noonu foofu lañ doon bëree quoi pare ñu bëre ma daan ko xam ma ñu bëre ma daan ko bi ma ko daanee abi bi joxul victoire quoi ñu bëre waat si bi làmb yi mu daanaat ma gars yi bëgg a xamal ma la. du si dal. gars yi bëgg ci waaw léegi suñ paa yi ñu dëkkee suñ côté quoi après paa yi siisu quoi non non loolu fi amee gars yi dañuy woote waat combat pare ñu woote waat ñu bëri waat ma daan ko du bëri 40 ans du lang baar ko bu buñ buñ buñ nii. si si ko ma buñ tëgguwantee dëgg ba nii ba bëri nii si si si biir dëgg ba mm. dama leen di daan. xam nga ñun dañuy neexal quoi dañuy toog nii benn instant yow mënoo maa daan ñu bëri wala kañ teg lii. Mm. lang baar maa ngi fàttaliku laasana ku ñuy wax laasana mën nañoo tegal 300 te boobu ñu ngi jël ay nag de mu tegal ñu 300 si monument ba. 300 francs 300 francs CFA tuuti ma rek ko. après bu ma ko daanee mu ne mooy 300 moo tax nga bëgg maa dam dama ko te boobu noonu ñu ngi jël ay nag. temps contact la contact la waaw ñu ñëw si li nga xam ne mooy maam Faly ni muy dundee ci entourage am village. ak fi nga xam ne mooy feneen fu muy toog ci Sénégal. waaw Mame Faly Mame Faly ñëpp la am jàmm. waaw fu ma dem damay bokk billaa wala watalaay aw ma kenn problème te ku ma gis nag ma jàmm quoi ni ma mel noonu laa jàppee ñëpp aw ma kenn problème fu ma fekk nii fu ma dem nii toog fa nii comme maanaam foo xamante ne mosuma faa dem moo fa te nii yaakaar ne kii dafa yaaga ñëw fekk du loolu mel quoi ñi ma toogal nii xam nañ loolu si man ñi yàgguma leen xam boo leen gisee da nga yaakaar ne mooy loolu ñoo bokk nekk baay te fekk loolu dañ ko dund rek defaluma leen dara awma lu ma leen defal wala wataala te mën naa ne mooy loolu noonu. niñ ma jàppee comme maanaam dañ maa jàppee comme seen bopp quoi waaw noonu rek laay dundee. ma faal ñii nee nañ caat la. caat taaw la waaw caati lan man man. koy caat nga yor de. <laughs> loolu ñëpp a koy. maa <laughs> faal ci koy caat la yor wala maa faal lu mu wax ñu wax wax de man lépp lu ma wax rek dañ ma koy yónnee. non loolu a man damay toog damay toog ba nit woo ma téléphone. billaa wallaa man mas naa toog ba benn gel woo ma téléphone quoi. ma yow mënoo bàyyi yow lu tax nga réew. Ah, maama la yar kon. nii la ma ko waxee waaw sama maam moo ma moom que man dama mos a seetaan benn làmb maam Faly njaab wër géew bi am ku kii maama ko yar <laughs> mun a seetlu nag xam naa ne kon bu di seetaanee lii maam Faly gëmal de gëmloo nañu ñu ne maama ko yar. non man man maam moo ma yar. Ah. yaayu kee mère bu ma nëboon nag. maa ko doon jël waaw. jox ay meew ay jëli waaw mooy loolu mère bu baax ndeysaan mm-hmm. mm, ñu ngi koy ñaanal mooy loolu noonu yal na ko yàlla xaare àjjana quoi mm-hmm. Mame Fall yi lan moo ko gën a métti ci li nga xam ne mooy carrière loo ñuy tontu merci question boobu noonu dama si sawar a tontu parce que xamul mm-hmm. eh, sama carrière li ma si gën a métti sama as nañ bàyyi noonu. non da ngay non garaawul garaawul garaawul garaawul. non munoo see laal ba ba ñëpp concentré wu toog di xaar li métti ma. garaawul parce que xamul tax. waaw ñii ñii dañoo dañoo yomb wax nit comme maanaam. Mm. mbër bi dafa ŋaam wala mooy loolu noonu. mais mais dafa am dafa am dafa am ku ma mës daan. Mm. te bi may daan boobu dama man maa ko doon daan mu daan ma. Mm. mu yaamu muy Espagne instant defet boobu yoo xam waa waa waa boobu defet boobu moo ma gën a métti sama defet yëpp te dama ko doon daan nag mhm. mais après bi ma daane dañoo dem benn làmb ji la fanaan mhm. ñib si quoi su boobu noonu li ma lay wax ni moom dina ko seetaan dina dégg ma wax su boobu après bi ñib see yi naan ma noo yaamu di ngeen daje jour boobu noonu boobu boobu yaamu war ngeen koo xam boobu instant yooyu noonu boobu noonu kenn mënu koo daan mhm. gars naan ma saa dafa màgg ren nii naa dugg nag man xalaatuma ne ma na mën na maa daan gaa naan ma non tey moom non il faut nga préparer parce que nga war a dajal nii naa ma ne leen kooku mënu maa daan pare bi ñu demee tak dañoo dem tak kaay boole ñu ñu bëre bi may daan gisuma ko tànk bii laa jiital mais tànk bii la jàpp daan ma jël bu yomb bi boobu may jooy mosuma jooy si làmb mais jour boobu laa jooy jour boobu laa jooy ba booy ma àndal dañ doon jooy billaahi wallaahi wataalaahi làmb ji mel ni dëj billaahi wallaahi pare ma binduwaat si poids lourd lamb ji fanaan sama xol mayatuma ma demaat si poids lourd quoi ma toog ma ñëw dootuma dem ma toog gédd lamb ji carrément jóge foofu noonu ma préparé ñu dem euh, fii nii ni ñu ko waxee Rofange mhm. bi demee Rofange li bëre foofu noonu ba ma des man ak moom ak abo ñu laan ak alamaani mhm. xam nga léegi ñu mayante ñoom ñu mayante seen biir te boobu moom laa soxla woon li may wax nii nag comme du maanaam loo xamante ne. comme maanaam dafa nekkoon ci man carrément que comme maanaam dama ko defoon noonu non non daan bi ma daano moo ma métti ak li ma si doon dégg. loolu mooy ak li ma si doon dégg moo ma métti woon. Hmm. parce que dama doon dégg booy bi dafa màgg bu la jàppee nii naa mu daan ma si loolu noonu ñi doon wax affaire bi métti ma trop. ma koy rëbb mun mënatu ma koo jot fenn ñu dem maya foofu la ñu waroon dajee. deuxième tour billaay wala wataalaay lu ma métti laa lay wax nii deuxième tour benn waa ji fii jàpp ko daan ko maa kooku ñu daje deuxième tour ma daan bi ma ñibbisee lamb safu ma ne sax jël naa lamb avant loolu dañoo dem Ngajoor ma may boobu ma mayuñ caalaan moom laa may boobu bi ma ñibbee kër damaa jooy ba mel ni koo xam ne dañ ma tàggee ku dee ndax dama ko bëggoon jot saa noonu dama ko bëggoon jot rek ko maanaam ba daan ko bii laa wala ta laa li di wax daa bëgg a jàpp waa ba waa ji tukki yóbbaale looloo ma métti nag ba waa ji tukki yóbbaale sama victoire. est-ce que est-ce que doo dagg ticket tam fekk ji ko foofu ngeen laaj ko combat. kooku kay mënatuñoo bëre kooku kay kooku <laughs> oh, na kon yaamu yaamu yaamu am na ndam ci sa kaw ah. te man ma non ko doon daan nag. ba mu ñëw ba mu ñëw feeñ mais waaw loolu laa lay fe dafa fay victoire bi mu am si man. dafa fi mu la daanee moo moo yéeme. moo ma daan moment taw koo daan ba loolu. te moment loolu foog mu métti te moment yi ma daan moment li nga def waa ji neexuma de yaamu yaamu yow ah. non yaamu champion la champion la kooku noonu année boobu est-ce que amul nag avant moo dem. année na huit nag hmm. eh, bu ñëwee ci li nga xam ne nag mooy amour maanaam. li nga gën bëgg ci làmb maanaam mooy ci côté woy la maanaam li nga xam ne mooy tàngaloo maam Fall yi léegi léegi léegi ci biir làmb. li may tàngaloo léegi léegi. waaw comme maanaam woy bi may tàngaloo léegi léegi. woy wala tëgg la wala yaa xam mbër mu nekk ak la lay. yëngal ci làmb waaw woy yëpp dañ may tàngaloo. man làmb bu am na woy boo xam ne buñ koy boo ko déggee rek maanaam yëngu. woy boo xam ne nag moom ah. Mhm. woy boobu dama yaakaar ne maa moom quoi. non woy boobu woy boobu Mbayang di woy naan naan naan mi nga watte sax mm. Lamine Bañu na yaawele adna fe la ngir xan ñëwee laa woy boobu dama ko moomoo jël ko parce que Toubacouta ngi nii jël faj nañ jël woy boobu dama koy woy bu ma tooge dama ko woy quoi parce que dama non parce que woy boobu dama koy xoolee sam bopp non parce que woy boobu as mm-hmm. dama koy xoolee sam bopp parce que métti woon na ay jamono métti mm-hmm. woon na ay jamono si man métti mm-hmm. woon na trop billaa wala wa taalaay mais yooyu yëpp jaru wax métti trop trop man kese man toog naa toog naa toog naa année boo xamante ne amoon amoon amoon ku maanaam ku ma am saafara bi may ñefe gisuma kenn di ñefe làmb man làmb bu ma yaafu son duñ ma dégg si làmb billaa wala wataalaay parce que instant boobu amoon jàppale may daw di béeteeku suñ dëkk di dem di wàlli xam nga di wax gaa yi nii dugg na fii génn ay wax yu ñaaw yu nekk dégg naa ko ci làmb mhm. mais dafa am lu ma bëggoon te li ma bëggoon tey jii mu ngi commencé ñëw tey du ma ne ku nekk ngi daw di ñëw de mais am na ñuy daw di ñëw xam nga li ma la wax mhm. ma lay wax nii nag sama xol laa ko jëlee am na ñoo xamante ne ñu ma doon séntu fu sori am na ñoo xamante ne tey jii ñu ma doon séntu fu bon billahi wallahi wa taala am na ñoo xamante ne ñu ma doon séntu fu bon. waaw boobu am na ñoo xamante ne nag ñu ma doon yéene woon nañ ma loo xamante ne mooy loolu mënu ko wax. mais gisuñu ko si man te duñ ko gis. parce que Olof Ndiaye dafa ne ku weet doo ñeme mais des fois ma ne ku weet des fois mu def la mu def la mu mu may la fit. tey man maay toog ñu may woote mais amoon na ay jamono man maay woote di wax sama soxla kenn du ma jàppale amoon na ay jamono. ah amoon na jamono mu métti. mu saf lool. billaahi wallaahi wa taala amoon na ay jamono mu métti trop si man. ku ma ku ma ku ma toogal may xeeb. amoon na ay jamono ku ma toogal danga may xeeb mais tey loolu lépp dañ na mën naa ne loolu lépp dañ na quoi mhm. tey tey bu ma bu ma bu ma bu ma nit yaakaarul du ma yaakaar nit comme maanaam bu nit bu nit bu nit comme maanaam ñooñ ñooñ ñi ma doon def lool ku ñëwul ci ñoom ne ma defal ma du ma dem ci kenn ne ko defal ma parce que bu njëkk mosuma leen ne defal ma ñu defal ma kon tey ji bu ma fa demee ne leen defal ma ñu defal ma rek am na lu tax bu ma xewlee ñu jàpp rek am na lu tax mais fii xale boo gis am na jaar-jaar mais sama jaar-jaar dafa métti dafa métti trop bëgguma bëgguma di si jaar quoi. am na solo dañ ko fay daal di dog rek ñu bàyyi maam li mu sant ñi nga xam ne ñoom la war a sant ci ñi koy jàppale ñi nga bokk di dundal ñi ngay àndal depuis temps temps temps temps booy ba nii santal ñëpp. waaw maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp xam di sant sama boy nekk Dakar ñoom Bàcci ñoom Mbengu njaay xam nga ñoom Ndiaye Guy Ndiaye waa Massa Tilène yëpp maa ngi leen di sant quoi xam sama yaay bu baax parce que dafa sonn si man waaw bu dul dara dafa sonn si parce que métti woon ay jamono moom kese laa gisoon métti woon na ay jamono lu ne dégg na ko mais nag yàlla baax na quoi li may mébét maa ñaan yàlla mu sotti. su boobaa képp ko doon wax di nga tëj sa làmmiñ maa ngi koy sant bu baax a baax xam nga di sant sama papa di sant sama yaay yu nekk kër ga ñu ma fa baax mhm. di sant waa famille ñëpp sama mag yi fa nekk sama am si jàmm yi ma fa nekk ñëpp waaw di sant waa Mbour bu baax sama surtout sama koñ sama mère yi fi nekk maa leen di bëgg di leen sant bu baax baax parce que dañ ma bëgg quoi koñ bi ñoo ma bëgg mhm. waa koñ bi ñoo ma bëgg defaluma leen dara surtout xale yi xale yu ndaw yi man damay toog. man yàggu ma fi mais boo boo ma gisee fii da nga yaakaar ne mooy loolu def naa fa ay cinq ans mais Mbour maa fi doog a ñëw ba toog fi diir bi ma fi toog nii Mbour mosuma fee toog ay cinq jours wala affaire yooyu noonu dama doon ñëw seet sama yaa trois jours ma ñibbi mais maa fi doog a toog heure bi comme diir bu toll nii maa fi doog a toog quoi di sant sama gars yëpp di sant sama gars yi quoi mhm. xam nga di sant ñëpp bàyyiwuma kenn sant sama grand yi nekk Espagne sama yaay Anta maa ngi koy sant bu baax a baax waa sama mère Amérique bu nekk Amérique Ndeye maa ngi koy sant doomam yëpp ak famem yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax xam nga di sant ñu bàyyiwuma kenn sama waa fans club maa leen di bëggee di leen sant bu baax a baax gis naa coono bu ñuy daj ci man aw ma seen fay maa leen di sant bu baax a baax di sant ñëpp bàyyiwuma kenn mais bu ma sañoon na sama gars yi toog fii nga interroger ma leen quoi. non si benn ñu sànni ay kàddu am na solo. Mhm. dañuy daal di xuus rek jël li nga xam ne mooy yaay booy bi. Mhm. moom it mu ñëw du ñàkk mu war a sànni ay quelques kàddu ci li nga xam ne mooy doomam def ci te tuuti témoignage.